seetaan Block TV Gambia ñu leen di dalal nag si xibaar yu leen di baaxoo di indil fii à Block TV saa su nekk ak man Mariam Ceesay fu ñoo tàmbalee nag si xibaar yi mooy kii nga xamante ne nag moom moo nekkoon justice ministre bi maanaam ministre bi nga xamante ne moom moo yore woon wàll li nga xamante ne néegi àttekaay yi di Bah Tambadou Aboubacar Bah Tambadou moom nag dafa resign si li nga xamante ne nag loolu la fi nekkoon maanaam minister of justice ak li nga xamante ne mooy legal adviser of the country kii nga xamante ne mooy Bata Mbirou nag ah, dafa resign ah, te ñi kenn xamul nag la moo nekk à ah, résine bi nga xamante ne moom moo waral nag mu resign taskati xibaar yi nag ñu ngi ŋàññe ne baatam mbir na dafa am liggéey bu ees bi nga xamante ne moom la war a dem defi foofu nga xamante ne mooy UN loolu waral nag mu bàyyi lii nga xamante ne nag mooy ah, legal advice of the country ak minister of maanaam minister bu nekk ah, yore wàlli néegi àttekaay baatam mbir nag ah, resign na si nekk minister of justice kii nga xamante ne mooy Dawda Jallow moom lañ jël nag daal di ko fal nag mu nekk minister of justice te wax nañ ne si teneen bu ñoo ñëw nii maanaam moonde bi lañ ko jox nag ah, mu daal di waat nag ah, yore li nga xamante ne nag mooy ah, waa néegi àtteekaay yi. buñ jógee si loolu dina ñëw si kii nga xamante ne mooy Lamin Dabo Lamin Dabo nag moom moo nekkoon fi nga xamante ne nag mooy NYC di National Youth Council moom tamit nag si 23 buñ rombal yi dañ ko jëlee daal di ko folli nag si fi nga xamante ne foofu la nekkoon di liggéey jéego bi nga xamante ne moom la government bi maanaam nguur bi jël na pour génnee ko kenn xamut lan la si moom nag si waxtaan yi nga xamante ne moom la amal ak taskati xibaar yi nee na moom deful dara te fagul ne dafa am li nga xamante ne loolu moo waral ah, ñu gaal ñu daal di ko jël daal di ko folli lii nga xamante ne nag mooy ndawi dëkk bi nag ñu ngi ñaawlu loolu ñu ne ah président bi nag dafa beeta li nga xamante mooy nit ñi maanaam def leen fiil because nekkuntoon di expect such from ah, li nga xamante ne mooy government nee nañ ne nag am ah, ki nga xamante ne nag mooy nguur bu fi jógee di nguur yaay a Jammeh nag li mel ni la fi doon def loolu war nag ñu daal di fal baro foog ne ne su ñëwee dina ñu fompal suñu rongoñ waaye nag génne bi nga xamante ne moom la génne ki nga xamante ne mooy Lamine moo Kendo Dabo nekk na li nga xamante ne naxari na ndaw ñi bu jógee si ne mooy drivers yi ñëpp xam nañ ne bu mbas bi ki nga xamante mooy njiiti réew mi dafa jëloon i jéegom yi mu di jël nag nee na ah, ah, drivers yi seen moto yi bu ñu ah, jël di fa di ko feesal i nit suñoo jël nañ i ñaari nit wala ñetti nit su dee van la ñu li nga xamante ne nag mooy li nga xamante ne moom mooy taxi nañ jël jàppale kenn rek mu nekk si kanam léegi nag bu mbas bi ñëwee na ba daal wàññeeku suñu dëkk bi ki nga xamante ne mooy njiiti réew mi dafa joxe kàddoom ne nee na li nga xamante ne mooy marché bi ak li nga xamante ne waa jumaa yëpp mun nañu ibbi daal di delluwaat mu meloon ah, a tax nag ki nga xamante mooy njiiti réew mi di bàyyi nag nit yi di dem julli kum neex rek ah, daal di li nga xamante ne mooy marché bi mu daal di jël nag dara fay mu ne duñ def ah, luñ mën a def loolu nag xari woon dara fay na seen i kàddu bi nga xamante ne bu ñu waxtaanee taskati xibaar loolu loolu lañu wax ñun loolu war nañu daal di def nag ah, strike buñ jógee si loolu nag ki nga xamante ne mooy njiitu réew bu mu yégee loolu daal di jël jël na nag ak jéegom yu mut nee na li nga xamante ne mooy driver yi nañ jël li nga xamante comme noonu lañ miin jëlee maanaam ah, nit mun nañ koo jël ba pare paas bi nga xamante ne moom lañ yokkoon ñu daal di ko wàññi buñ jógee si loolu su si mujjanteli ah, xibaar yi nag dinañ waxtaan si ki nga xamante ne nag mooy David Colley David Colley nag moom moo nekkoon a director general of prison Gambia prison department moom nag mu ngeen nekkoon fi nga xamante ne mooy Mile 2 David Koné dafa ñëw uy si si boobu à TRRC the Truth Reconciliation and Reparation Commission bi nga xamante ne nag dañ ko daal di indi fi na pour gestuwaat ñaawteef yi nga xamante ne nag ah, njiiti réew bi fi nekkoon nag ak i ñoñam loolu lañ fi def David Koné nag ah, bu mu uy si yooyu si boobu TRRC nag gaara na i kàddu ne wax ne ne tuuma yi nga xamante ne mooy ñu njëkkee ñëw si TRRC bi moom lañ fi defoon moom lañ ko waxoon loolu nekkul li nga xamante ne lu am la kii nga xamante ne mooy jabari Baba Diop moom it ñëwoon na nag uy si si boobu tiyaaraas xon na kii nga xamante ne moom mooy David Kody nekkoon na xamante ne ku bon la ndaxte David Kody i xaalis daal di na ko générito te jox na ko lii nga xamante mooy ten thousand dollars si a bàyyi ki nga xamante ne mooy Baba Diop dafa am tam moom dañ ko tëjoon si fii nga xamante ne nag mooy mile two moom nag garan i kaadom ne wax ne ne fii nga xamante ne mooy Mile 2 duñ fa daan am li nga xamante ne mooy lekk yu baax looloo waral nag gars yi di am feebar boobu noonu bi nga xamante ne biri biri la te rey na nit yu bëri foofu nga xamante ne mooy Mile 2 Baba Gale Jallow nag moom itamit garan na kaa kàddu na wax na ne dafa am tool bi nga xamante ne dañ ko def ne farm of the uh, prisoners boobu nag uh, luñ fa munti béy rek dañ ko dee jaal di ko jël na yóbbu ko fii nga xam ne mooy kiri David Colley David Kony nag ah, bu mu uysee si boobu TRRC ah, moom kii nga xamante ne moo ko doon la mooy Issa Mbaye Fall di lead counsel of the TRRC David Kony li nga xamante ne nag moom moom lañ fa waxoon mu ne moom luñ fooy yëpp loolu a ah, méngoowut ak li nga xamante ne sax mooy coobereem ndax maanaam moom bugut ko te li nga xamante ne sax moom xolam a may na ko pour mu war mun a def loolu David Kony nag bu mu ñëwee nag nekkoon na bés bi nga xamante ne métti na diggante moom ak ki nga xamante nag mooy lead counsel of the TRRC di Issa Mbaye Fall léegi nag ki nga xamante ne mooy David Kony testimony bi jeexul nag ñu ngi ko séntuwaat pour mu ñëw re-appear waat before the TRRC the Truth Reconciliation and Reparation commission si suñ dellu gaay suñ dellu si waatee si lii nga xamante ne mooy bireeg yu ñu dee faral di am every three weeks askan wi lii lañ leen amaloon tey si seen xibaar yu ne leen dee baaxoo di indi fii à Block TV ak man Mariam seen jërë ngeen jëf ba beneen yoon